asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi ñoo ngi leen di nuyuwaat di leen ziara bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér mbokk yi tey jii ñu ngi fii ci grande mosquée bu Touba ci guddi ki nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àddina ñu koy dundal fii di ko fi màggal ci ni nga xam ne noonu ko Serigne Touba waxee ci loolee nag ñi nga xam ne ñoo di daayira Muxaddamatul Xidma at mu jot depuis bi ñu amee ndigal ci Serigne Saliou Mbacké ñuy wéyal ndigal lool di ko amale fii ci grande mosquée bu Touba ren ji ci atum 1441 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu Mouhamadoul Mountakha yeesalaat ndigal loolu ba pare ànd kook ñoom loole xam naa incha allah Serigne Abdoulaye Diop mi dana ci ñëw incha allah waaye mbokk yi lépp loo xamante ni day bàyyi ko fi incha allah ci ànd ak yéen moo xam waxtaan la moo xam kuréel la moo xam ni nga xam ne noonu la Cheikhul Khadim daan dundale li nga xam ne moom moo di gàmm gi incha allah fii nii ci grande mosquée bu Touba ñu ngi ak ki nga xam ne moom moo di Serigne euh, Abdoulaye Diop kenn la ci kilifa yi nga xam ne ñu ngi nekk ci daayira Moukhaddamatoul Khidma bokk ci ñi nga xam ne dañu yor communication bi Serigne bi ginnaaw bu ñu la nuyoo ndokkeel ci guddi gi nga xam ne ci la ñuy màggal euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu mel ni daayira Moukhaddamatoul Khidma yeesalaat na ndigal li nga xam ne mu ko daan am saa su ne dundalaat. gàmm gi fii nii ci grande mosquée bu Touba ren ji yan taxawaay ngeen amaat ak yan yeesal ngeen defaat ngir ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi ñu mën a fii ci grande mosquée bu Touba amal fi li nga xam ne moom moo di gàmm gi. jërëjëf sëriñ bi ñu ngi nuyu mboolem téléspectateurs yi euh, ak fu ñu mën a nekk ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di jiital ci nuyoo bi ni nga ko waxee Cheikh mun Mountakha ñi nga xam ne moo toog jotaayu Cheikhul Khadim di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ak mboolem njabootu Cheikhul Khadim bi yëpp. Euh, di ndokkeel jullit ñëpp ci àddina bi ci guddi gu mag gi nga xam ne moom la ñuy màggal muy guddi gi ñuy fàttaliku ka nekk àddina suñu sang bu tedd ba euh, euh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te nga xam ne ci fàttaliku gi ngëneel yu baree baree bare mi ngi ci suñu jàmbaar ji Cheikhul Khadim bind ko ci ay téere yu bare baree bare ni ko waxee nag daari Muxaddamatul Xidma daana màggal guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ko defee fii ci jumaa ji dañ ko daan defee fële ci kër Serigne Afia Bousso mi nga xam ne mooy njiitu daara Moukhaddamatoul Khidma waaye nag ci jamonoy Cheikh Sidil Mokhtar ci la Cheikh Sidil Mokhtar gis ne daal euh, gë màggal euh, du Yonent bi salaay salaam bu ko daara Moukhaddamatoul Khidma di def ak di liggéey ci biir jumaay Touba defee ko ci biir jumaa ji mooy li nga xamante ni moo gën a yaay ci la ñu woo woo waa Rawdu Rayaahiin ne na ngeen ànd di ko dundal fii ci jumaay Touba ñu di ko def di ko def yàlla dogal euh, mu wuy ji boromam Euh, Cheikh Mouhamadul Mountakha wuutu ko yàlla na fi yàgg te wér moom itam nag daal di yeesal nag ndigal loola woonu woom daay rétro do yaaxin ne loolee sëñ Sidi Muxtaar defoon de loola laa bëgg ngeen wéelu ko di dundal guddi gàmmu gi fii ci jumaa ji euh, euh, man sax lu ma ci man ko def waaye naa ko ànd ak yéen te loolu itam la def lépp loo xamante ni xeeti xéewal la ni ko sëriñ bi waxee bi sukkarin aw la xame loo lu saf suukar wala loo xam lu jëm ci ndawal la Cheikh Ahmadoul Mountakha jël na ko dugal ko ci gàmm boobu boole kook nag li ci gën a waar nag mooy ñëw di ko ànd ak noonu mooy ku ku nekk xam na ne daaw ku suivre académie bi nan gis na ko Cheikh Mamadou Mountakha bi mu demee ba guddi gi xaaj ba sori ñëw na ànd ak nun guddi gi li des ci guddi gi ba tëjal ñu gàmm gi doog a julli ci jumaa ji dugg ci jumaa ji julli ñaanal taalib yi fi nekkoon yëpp muy lu am solo loo xam ne muy lu am solo loo xamante ni ñun mboolem kuy ab murit war naa sedd xolam donc loolu euh, mooy mooy ndigal li nga xam ne moom la daayira Muxaddamatul Xidma amoon donc bu fekkente ne nag ci ci ci ci wàllu ci wàllu doxin wi doxalin wi mooy doxalin wi mooy yëf yi jamono bu rek day gën a yéeme am na image yoo xam ne ku ko wane ne lii mooy gàmmuk Touba wallahi azim dañ ne mbooloo mu toll nii moom jàpp nañ ne mënu mënul daje fii loolu lépp nag mi ngi aju ci pas-pas bi nga xam ne murit am nañ ko ci njigali sëriñ bi ndax ku nekk xam ne sëriñ Tuubaa fonkoon na gàmm fonk goo xam ne bu weer yu masaan teru sax képp ku ko njëkk annoncé na ko weer yu feeñ na dana la jox neexal bu mag a weer wi itam lépp da ci daan bëgg di ubbil nit ñi di yaatal di bernde ah, bu guddigee daanaka mm, noonu jàngkat yi da leen di xëppi parfait di leen xëpp euh, sikki di leen xëpp ah, mboolem li mu yoroon ci ay lekk yooyu loola nag bu seex Cheikh Mamadou Mountakha ñëwee jaar ci yoon woowa ñu murit yëpp dañuy wëlbatiku mën a sóobu ci ngir mooma loolu mooy taxawaayu murit yi bu dee nag ci wàllu programme ni ko sëriñ bi daan defee ci njaareem rek noonu la ko daari muxaddamatul xidma di defee muy ñetti kuréel yooyu muy kuréelu jazb kuréelu muxaddamatul amda ak kuréelu mawaahibu naafe bu ci nekk dana jàng bu ci nekk dana jàng fukki bayit ak ñaar ak benn bunt ci barzan noona la ñuy fanaane waaye lu ko jiitu am na jotaayu waxtaan boo xam ne moom lañ ko lay taayale mooy moo mooy mooy mooy mooy dem mooy dem niin tey Serigne Fallou bu sa Tamba seq ko ak Serigne Mbacke Abdourahmane ñu war a waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wasallam melaw yonent bi sallallahu ci biir mbindum Serigne Touba waaw loolu la ñuy waxtaane loolu nag xam nañ ne Serigne Touba li mu woo yonent bi sallallahu alayhi bari na loolu mën nañ ci waxtaan ay junni junni at du jeex moo tax thème bu yaatu la boo xam ne at mu jot mën nañ koy beesalaat boobu la ñuy lay taale bu jeexee nag juste benn waxtu rek lay am ci la ñuy tàmbali nag programme bi bu ko defee nag ànd ak organisation boo xam ne macha allah teg nañ ay barrière man a xàjjale góor ñi jigéen ñi nit ñi tam ñu leen ay yoon yoo xam ne danañ mën a accès ci place bi nga xam ne fi la euh, waxtaan wi di amee ak gàmm gi ñi nga xamante ni itam dañuy ziar duñ leen yàqal mën nañoo dem ci seen barab bi ziar ziar kon daal jël nañ ci ay matukaay yoo xamante ni macha allah mucc na ay waaye presse bi itam kenn demul ñu des ñoom itam bépp activité boo xamante ni dafa concerne yoonu murit ñoom xam nañ ne dañ ciy jëf ba jëf ci lu kawe njortu wax dëgg yàlla ci préparation ba léegi ñu ànd ak ñun couverture bi di ànd ak ñun ci programme bi ba guddik tey ñoom ñëpp ñu déplacé ku ci mel ne académie bi nan ñëw loosi ci biir jumaa ji spécial pour couvrir màggal euh, gàmmu gi ba fu waaye mën a nekk ci àddina bi taalibe biir réew mi ak bitim réew dara du ko ci um leeral yi am na solo lool ñëw na ci taarixu li nga xam ne noonu la ñu dundalee guddi gi ndigal liñ ci am ni ko Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké yeesale waaye it ñëw na ci programme bi ni nga xam ne noonu lañ ko fas yéenee dundalee moo xam ci waxtaan yi moo xam ci kuréel yi moo xam ne nga xam ne lañ ko defee ci barsan yi nga xam ne ñetti kuréel lay doon kuréel jës bu kuréel moahi bu ak kuréelu mu xaddimaatu lépp ñu boole ko barsan bi loole lépp incha allah da ngeen ko am mbokki téléspectateurs yi xam naa ci kanam rek daañu jëlaat réaction yeneen kilifa waaye temps fort yi ak lépp loo xam ne day bàyyi ko fii ci grande mosquée bu Touba ci gàmmu gi di atum 1441 ginnaaw